Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. d'accord mën na am ba tey mën nañ koo génne waaye nag danañ ko xalaat balaa ñu ko génne dana tàng lool parce que nee xalaat ana lan moo tax mu waroon a rey kii waaye moom tamit dina regretter parce que xamutoon na ñoo bokk ah beneen bi mooy euh, est-ce que xam nga ni balaa lii niñ koy waxee sax balaa yaay joor di gaañoo ci comme comme ni ñu wanee ne gaañu na nii balaa ñu koo defee accident boobu di am xam nga ne gar dafa bañoon ni mu moo jur joor xam nga loolu daf ko bañoon troxal mère Mariama xamal ko ne ko jurul xale bi tey jurul xale bi ëllëg loolu moo nekkoon problème bi jël ko sànni ko mook yaayam moo tax pour ñu juboo wax ma ne du am waaye du yom lii may problème bi. waaw mais sama gars mais mais mais Pa Birahim Pa Birahim ma xam nga ne Mariam bu dellu si waatee xam nga ne ci garmi lay dem ak ci li ma yaakaar. ah xew gi kii dina doon génn ak garmi ba ñu foog ne dee na te deewul mu dellu si waat di si ak baabi daal non non loolu moom ko ma man daal yaakaar naa ne day delluwaat ak yaayu joor waa dem si ak moom comme loolu la bëggoon te mënu ko am foog ne dee na te deewul ma yaakaar ne ak yaayu joor lay ñëwaat babiraama day ñàkk de babiraama bàyyi ko foofu surtout bu fekkee alal ji yëpp gars yi xam nañ ne ñoom ñooko ko moom doo ma ne mu séyati ak ak ak mariama di leen nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen bëggee waa di leen ziar di leen delloo ziar di leen wax naka seen ngoon mbaa yéen a ngi am jàmm waaw tamit dëgg mais xam nga yow léegi nga wax nga ko jaratul ci jaaraat mooy lan Pape Birahim bëggu dëgg Pape Birahim dëgg ci boppam la bëggut te soo gisee lii lépp yéen xam ngeen ne alal ji lay protéger rek alal ji lay protéger waaye Pape Birahim ba tey tamit. mere na naar Jóob ci bim jëlee maajoor dem jaay ko ci réewu naar ya am na fum mu ko meree moo tax moom ci jëmmi boppam dafa génne loxoom ci naar Jóob donte nag génne wut ko à 100 pour cent mais génne na loxoom ci moom waaw mooy li ma leen wax rek pour euh, kii dañ koy waxee sax Pape Ibrahima na leen toog seetaan ñu ngay wax ne dara comme dara du ko ci fekk <laughs> waaye boobu dafa fekk ne. waaye naar Diop xamul ne moom ak ñële moom ak tata baneel ak euh, tata kii ni ñu koy waxee sax euh, maa ngi fàtte tur bi yaayi joor mariama ñoo bokk billahi bis bu ko xamee alal ji moom fu jaar moom moo koy lijjanti ci jëmmi boppam xanaa balaa boobu noonu fekk ñu lijjanti alal ji mañ sa lijjanti alal ndax mañ sa promettre na maamam xawma papaam xamal ko ne ko alal fat ngay end fu munti nek nang ko genné te nang ko diriger mu ne leen waaw léegi nag alal joju mom faw mom mu wëri ko ndax prometteur bi prometteur mamam ba tay lolu mu ci mom day tok di ko day tok di jener lolu <laughs> euh, théâtre bi du yombu de waaw wala nag gis nga non la fa demee moy Pape Ibrahim dafa bëgga jaxassé ba pare dafa am kilo mu war koo lijjanti di lijjanti xaaji genn wàll liibaru garmi mooy problème bi li nga gis noonu li bëgg mooy jaxase diggante bi mu gën a jaxasoo loolu la bëgg moo tax mu ne kii yi koy waxee sax euh, maa ngi fàtte tur bi sax moo tax mu ne maa joor ko gar bi moo jur yaama <laughs> mais day nelaw moom day nelaw gis nga joor ak maajoor dañoo dóor yaama te seen loxo laaluñu ko dañoo dóor yaama ba muy bëgg a dee joo si waxam dafa dóor yaama te loxoom laalu ko maajoor da koo dóor te laalu ko waaw instant yi moom naqaro xolam lay dundee maajoor yaama si waxam dafa am naqaro xol. waa ami na ko kay na ko man ak yow bokkuñu dara daan na ko xoola photo boobu mais naar boobu ba tay sax waxagut ci photo bi loolu la de waaye Pape waxoon na ko daal moo doy rek moom daal moo jaxase sa famille am nii. alal ji non waru ci war a mën a am dara non non non parce que benn alal ji ñoom dañ koo sàcc baayam ak bàjjanam xaw ma bàjjanam xaw ma ñoo ko jël yaa ngi dégg uh, at the end by and force they don't have any right for that money amuñ benn right ci xaalis boobu noonu xanaa lenn ah joor mën naa jël jox maa joor mais xaalis boobu moom bés bu demee ba lii ki koy diriger mooy euh, kii ni koy waxee sax mañ sa ndax mañ sa moo fay góor seen mag bu góor boobu suñ ko gisul mañ sa moo fay góor moom mooy ki koy diriger ndax xam nga ne pour mañ sa diriger ko pour maajoor am fa dara du yomb pour mañ sa diriger ko maajoor am fa dara du yomb waaw te bés bu meer euh, ki naar jóob tamit xam nga demee ba agri ba gars yëpp d'accord nangu waxtaan ci loolu nangu du yomb yi tamit pour ba tey tamit alal jooju Madior am ci du yomb. Pape Birahim si boo xam instant yi doy nëbbatu nëbbatu bu métti Pape Birahim bëggul kenn xam alal bi naka lañ ko la ko amee ak fan la alal bi jaar ak nan la def ba alal bi ñëw si moom moom bëggul kenn xam ko Pape Birahim bu sañoon alal bi du joge si ay loxoom dillaahi bu sañoon alal bi si boppam du jógee si ay loxoom mais euh, dëgg la nag. alal bi moom buñ ko nangoo si maajoor nang ko si Pa Birahim dina metti trop mais wax dëgg yàlla moom yéen a ma ko maajoor moom wax dëgg yàlla yéen a ma ko ko day metti rek mais yéen a ko ko de billaay wallaay non xam nga ne maajoor ak joor am nañu lu leen metti dégg nga dafa daanu yaama daanu na ngalañ la def ya xoolal amul luñ fi waxal yaama yaama si boppam moom comme que dafa bëri pexe rek ay pexeem lalu na tey si suuf ay pexeem nee na mbapp si suuf laa woon yaa ma mënul ëpp nit ci xel nag maa joor moo ko ëpp xel joor moo ko ëpp xel dañ koo bàyyi si biiram ñoom ñëpp mais ñoom ñoo ko ëpp xel yaa ma waxoon naa leen yaa ma day daanu alal bi Pa Birahim moom bu ko bu ma moom même moomul alal bi de mais joor si alal bi la bokk parce que yaay joor si alal bi la ko yaa yaay joor si alal bi la bokk comme que yaay joor si alal bi la bokk kon joor si alal bi lay bokk joor moom mënul ñàkk si alal bi moom foog mu am si moom joor mu dina am si alal moom loolu moom forcé la mais yaama moom lu ma leen mën a xamal yaama daanu na fan si yaama yi moom dama bëgg nañ nangu rek nañ nangu na yaama daanu na wax dëgg yàlla nañ ko nangu. waaw oh, waaw dégg naa léegi Madior Diop mën na mën na instant bi mën nañoo parce que benn Fanta Diallo mi ngi foofu te tas diggante bi bëgg Kébé tamit rakku joor bi moom it tas diggante boobu la bëgg moo tax mën na tas te du jóge ci yaama mën na tas te fekk du jóge ci yaama. Kébé ngi fi euh, Fanta jàlloo ngi fi man daa moo yaa ah, man sama xalaat man moom bu ñu bokkee papa moom dana ma bett lool waaw bu fekkee ñoom ñaar ñoo bokk papa man sama gis-gis man dina ma bett xaw ma nag parce que affaire film la. gis nga loolu du neex de mais mooy am film ma mën ne ndax film bi ñoom ñaar ñooy acteurs yi ñaar lañ tuddee film bi. ñoom ñaar buñ buuree ànd rek du neex xanaa gisoo Pod ak Marichou chaque jour ñuy tas di àndaat bu ñu àndee rek film bi du neex ndax ñoom ñaar ñooy film bi même wéri wéri dina loolu sumbul tamit ak soosoo gisal seex naa sa suru mu ci di yàq muy gën a neex mais ñoom ñaar buñ buuree ànd nii dafay yomb film bi du neex ñaa ñeen tuddee film bi ñoo doon acteur ñoom ñaar dafa war a métti balaa ñuy dajee waaye Jules déggoo li ma ñoo bokk gis-gis mais man man maanaam d'accord ma yaama nekk rakkam dama ne la yaama bis bu fekkente ni gan mi moo ko man ba daf may bet dina ma bett dégg nga mais kanta maajoor ak joor moom duñu mës a am jàmm ndax benn fanta jàllu mi ngi fa te dafa nopp maajoor kebeer ak joor mi ngi fa te dafa nopp maajoor moo tax à chaque fois ñoom ñuy bëgg chaque jour loo xam day yàq diggante bi en bi kebe naan bi bi fanta jàll naan kebe man yow la ànd parce que yow la maajoor gën a yow yaa gën a rafet joor yéen yaag Maajo seen couple la gën a ànd ko joor defal loo mën a def pour yàq diggante boobu ci la dem bàyyi ba uh, kii di ñëw nu mu ti cousinu cousin joor bi di ñëw mu ubbi porte bi tëdd ci kaw Maajo pour mu mën koo foto muy sa maanaam dama yàq yi mën na jóge ci Fanta Diallo wala Kébé mais kanta moom man yaam moom yaakaaruma ko yaakaaruma du yàq yi doon jóge ndax yaama dafa ragal yaayu yaayu Maajoor loolu mooy problème bi non non de ñoo ñoom ñett ñëpp bokkuñu ndey ak de ñoom ñëpp kenn ku nekk bokkuñu ndey ñoom ñëpp bokkuñu ndey ak baay benn yaay rek lañu bokk mais bokkuñu ndey ak baay kon yow kii mën nga façonné li mais bokkuñu ndey ak baay dégg nga bokkuñu ndey ak baay de. waaw muñ googu kay daa war daa mënta ñàkk muñ gi dafa war a am di waaw mooy doon sa barkeeg doom rek. bu dee muñ gi yàlla tax xaw ma bu fekkee muñ ngir intérêt leneen lu yàlla taxul mu xaw ma waaye bu dee muñ te yàlla tax la ah mooy doon sa barke doom ëllëg rek moom moo wane ñu liggéey liggéeyu ndey añuk doom ba réeru sët sax da ci am sa <laughs> say plan rek li ma si xam daal mooy sekk bañ ma doxaani defal say plan nga sonn ci man waaye mënoo ne forcément sa plan bii nga def yow dana bu yëngal li may yëngal moom ma dëgg yàlla moom du woon yaa ko voilà dafa may neex ma yëngal ma man naqare ma yëngalut morom ma la fay dem seeti ku a yëngal voilà le problème foofu le problème nekk defal say plan rek teg toppatoo loo mën def ko il faut nga muñ boo amee jëkkër li leen njëkk a wax ak buñ ni muuree ba teg li leen njëkk wax soo demee muñal bu comme baatu muñal dugg na rek moom day wa day wane ndeysaan neexul da nga tooñ waaye dañ la tooñ soo mënta muñ kon doo fa yàggu dafa toog muy góor muy jigéen ko mën a doon il faut ñu muñ voilà mais man doxaani nga ma rek waaye yow man yow demoo fenn yow tojoo fenn nu ma dem kër kër yi sonn sama alal di jënd ko daj lu ne ñëw fekk na sa kër bàyyi ñaan lañ ni may ma laaj dañ ma laa may may dañ ma laa may mala mom yow bu ba yow bu la bu sa bay sa bay mi la may su ñëwoon sant ma dara sant la dara man ma taxaw sant la dara sama boss man mo gëna a def farte ci yow ngeen def ko ci ba sa bu sa bay bay sa def dem def sama boss sama boss nga wara a defi sa bu bay bi nga bay ko da ngay bañ wala soko mënu do ko def lool mo la wax legi yow après nga taxaw na man duma doxati te mo la am ñi ñeenti jabar yow yow yow ba pare nga nangu ne yow am yow nga nangoo am mujj yow parce ba nga nangoo ne su ma takkee ñaar doo bañ koy bul nangu ma doxaan man waaye tànn sa bopp ku ma neex gis ko bëgg ko doxaan ko ba mu neex ma ma takk ko comme ni ma la takkee yow te doo ci mën dara nga bu la naqaree nga kon nga di war sa di ñibbi sa kër bàyyi rek keneen ñëwaat loolu laa xam ne